a إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد الذي بعث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فنقول صلى الله عليه وسلم لقد بلغت الرسالة نشهد أنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه وجميع المسلمين الفردوس الأعلى عباد الله هيا بنا نتذاكر شيئا من قوله تعالى في محكم تنزيله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولنتذكر قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إذا فموضوعنا اليوم عن فضل العلم والحث على طلبه إن الله سبحانه وتعالى حين بدأ الأمر إلى رسول الله فأول أمر نزل في القرآن ليس صلاة ولا زكاة ولا هجا بل قال وهو أصدق القائلين اقرأ باسم ربك الذي خلق فبدأ بأمر القراءة اقرأ لأنه هو باب العلم فبالعلم تعبد الله فبالعلم تصلي وبالعلم تزكي وبالعلم تهج وبالعلم تصوم لأنك تعرف ما يفسده وما يحسنه ليس لك طريق إلى ذلك إلا بالعلم لذلك فالله شرع في تشريع بأن بدأ بالقراءة فقال اقرأ باسم ربك والأمر إلى الرسول ولكنه يعني الأمة جميعا اقرأ باسم ربك الذي خلق لم يخلق غيره الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فهو قال اقرأ والقراءة هنا لم يذكر المفعول به اقرأ أي شيء تقرأه باسم ربك كن محاطا باسم ربك في طلبك العلوم الدنيا وعلوم الآخرة علوم الآخرة تتعلمها من أجل أن تعرف ربك لأنه بالعلم كما يقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فعل فعلمك يدفعك إلى أن تخشى الله لذلك يقال من كان أعرف بالشيء فالأعرف بالله هو الجدير أن يكون أخوف لله سبحانه وتعالى من عرف الله حق معرفته كان أجدى أجدر أن يكون أخوف من غيره من الله سبحانه وتعالى لذلك يقول إنما يخشى الله بالحصر من عباده العلماء ليس علماء الكلمات وعلماء فنون الدنيا ولكن الذين علموا مقدرة الله وعلموا قوة وبطشه وعلموا أنه إليه المصير إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إذا أدركوا هذه الحقيقة يخشون الله لأنه ليس لهم مآب ولا مصير إلا إلى الله نفر إلى الله منه إليه فروا, من فروا إلى الله وفروا من الله أنك تفر منه لكن لا تجد مكانا للرجوع إلا إلى الله سبحانه وتعالى فالذين أدركوا هذه الحقيقة يخشون الله حق خشيته لذلك يقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله إذا هناك ربط بين العلم والتقوى كما قال الأخ آنفا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إذا فكل هذه موجود في تعلمك العلم عندما تتعلم العلم يكون التقوى سابقا ولكن بعده يأتي العلم اتقيت الله خشيت من عذاب جهنم رغبت في الجنة تخاف أنك تصير إلى الله ليس لك مصير إلا إلى الله إذا هناك خوف فهذه هي التقوى إذا إنما يوجد التقوى تسأل نفسك أين الطريق للنجاة يأتيك العلم مرحبا الطريق وممهدا الطريق ليقول لك اسلك هذا الطريق لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة ويقول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وإن العلم أيضا يصاحب صاحبه حتى بعد الموت فإنه يؤتي ثماره حتى بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له أخنا هنا التي تيغان تشون الله دابا وانا صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكيم بيوغا سيدني نانتا دا خيفارا كون هذا تيمانتي amma kan pati mandenga ayilla da khudun kulla khunya komon dangani allah komen cu dangani antamul la kahribani men to nyanya kan kam da toran chu sahay aka kappa makka sero khoroj le munyai qabila khoronyai ida lo koyen chu nyangay mi ga bagani ni de ben ko domenia pa pour ay medi korende mais pour o kususu ko humante on kisi al qiyamam ko taybe kenya ni sallallahu alaihi wasallam ngara ko haqqu anta anta anta anta wasede bawni ada qanu duna suwan kisi akahiri sere roji imben no khoni farem kori nyani malaga alla la tadhhab nafsuka alaihim hasarat muhammad ma kada mandu karitia di batenga nanti mi suban tongon ike imme alla anda khanu kuben gani haklan tongo kunku ngatongon kha hogo bi gana baran ken kampen nan hari nyake anya harikinya kinyan dana husri anya no khudun kullana fusri ada khanu silamin do hada maram men cuko humanti asunya silamia bawni alla imegati يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن نون التوكيد للجمع ولا تموتن أخسوا مم مما من دا كاهراهم قل له بني أخسوا جميعا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون أجا هي تاغاني مستسلمون لأوامر الله منتهون عن نواهي أخسوا نياغا دوان تونغا نتي الله نيامري غامي أخسوا غدا دوكا باباكا الله كوتيم كمبري الله فارن قول لك كما حتى أتاه اليقين ما كان لغيرنا صلى الله عليه وسلم الله كومو koron kan wallay allan kan ne nyani hollaqi hanan an ton me kegana ko hugo allan kan ne nga hillandin nari o hasa hene kenya kama kenni tuwa an kan wallay an ga kan jahannabe an ga arjanna allan kan ne dan ton do men paga anda khutuwa mugo anda wajunde mugo allan kan ne le memenin to mbakati min nga kisini ke jahannaba tuwa khun nari siginan timpayke tuwa khun na timpayke telengi ngan nakillenki nanga kenya ci ga qur'ana yankandini amajo farenda amati sum amati hiji amati jakka bagan ati iqra muhammad khara awre ne kharlem mem pay ken ki annan dina ke tunuti kharangi annan dunay metunu kubenu gada dunatu na ho kitana technology kita ibogu ti kharangi alla ni iqra iti araben kan ndangana na ti qaranti ni ke hulana qallati ata qara tanka man to man anka man ade anga dina nya kharanga an kaman to nya na nyori anga biyo kharanga la anga technology nya kharanga anga ho karanga ana nyi bismi rabbik an nyori ten na nyita an kaman to nga urene an kaman to nya gam maka sanga kanna parce que hobe to nga tenga an na kaman korosini an na du korosini kataye an nan kharami allan kan na loken kharanga duna kharangi so anga karanga allan kan ne ngana rana gondi anan na hana duna di anan na halaka khanga na kharati duna bane ay duro khotan nan to duna na gondi an khagan to landa karabane ke an kan kamanon kembere wajibi be go kam malenki o yimmen khara me onore mun kharangundi ono ko ren kharangundi bona alla farenda ko nanti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati aka sun naga nanu ni sir suga dimi garantir ni nantir ni naga ni hon alla gatin ko tabe waqifuhum innahum mas'ulun isigindi isigindi malaika no khali sigindi na ho hotirni ni angara ne mabe kinanga ndalle mun kinanga le mumani yogo ma ndanna buren kinanga mani yogo ma nday suhunun kinang an suhunu ko bane sugadi idi yogo kumai an nyaaka an ke nyaaka nga ho yogo yaaka tay awre ni kebe yakhe kan tahoy anan ka wandi nan ho yogo toron tay an na ka wandi tay an ga ter nan tan di yogo ran tay an ca hante na li misre ndi yogo sa ko pital nga mulay donc an nema duro allah ti ku nema no khaydi kinanga wala tusalunna binuni tawkid lil jamaa aidan akhasu yuwarina ndi sere sugadi ku nema yogo wanda angana ti lemmen tim makay nati man yaxe ngoy yogo yaxe taw anta hasaka man ya ya allah ga dan biya nan ya ko kina nga yala an kana nyako kunya na harami hay mbane surtout go ke kiyebe disas donc kembere suhu so allah ga dakina nga nema so allah ga dakina nga allah da nunu tawkida na khoton di nanti minke kuna tun ka ko ngari na nema so ga kina an yaxe ni nema ni an nema ni an kiten ni nema ni an tan ni nema ni kusuni nema nu ni aha andi kiram menit even 4 heures ken men kam ikute yenni ba mi bate ñen andar ga nan tan ñangul duna suy parce que allah allah kuteni subhanallah ko tay nan ka huma meena allah prekar khullen di nan de nanti allah natu laqad jitu furat aw alikat allikatiya wa wajadu ma amilu hadira angara ho ho nyanda nyi dukan kembere nga awajibi on khara wona tu kesu waju ndeki gana koni o koni anga ma kharan kharanta killengal kembere nga alla farenga da ko sallallahu alaihi wasallam nanti talabul ilmi fariida amati sunna de fariida للتوكيد ننتصر سوغا خدي ala kulli muslim silamin chu yugo ndo xari e cuana no nanti tuwaxu muriye wajibi ñeni la ñeni yugo ndo e xari ti nke xoro tuwaxundi sere be ro silama xundi nan toxo kame sine wajibi hana nan na xaram anta tin giran ncale anda salana na meniko anda sigana meniko anda jimana men anda girana men anda har kame sine an na xaram ndia donc xarangi gella ga kanu allah ya garo silama xundi tawurani imanu ndo taqwalli akanu allah ya wati yilene kati alla ahana meni ñan ankara angaro taqwa ken kenyani allah gati wattaqullaha wa yuallimukum hakkanu allah allah na haramati kembere horonan khara o gana khara wona to kadore munga surtout hay sine année scolaire njo perani horona le munon kharamuti magal le men kharamuti nantana duna bane khara nga khal so horon to ganadi me dinan khara nga anda kenye be anda to halle allah khantari nantirndi duna ila la khara kota bawni la khara kota duna ke andam palle koy kenga am pay la khara yala anda la khara khara ngenda bari ba andal le me ke kharamunde ba lemme be anga nya tini anga nabur khore lo na dunadi kenya li nampo ponya nati allah a ampa ba hayke akel la na daga na arjanna kam a salli di anta bakka misire ndi qamo ko kharangu di dine adi kharangu di duna yo khara duna to hal modi sarana su gadan nan cimmeke an nan cimmeke an nyaqu allah ri nan tirndi allah mu allah nan tirndi ni aga tirndi ni i khada kebe be na in qawina khara a ta daga gira kan chal ingiri chal yer men ko kembere nga xarang ngat mu xatim pay awa wajibin yugum kam awa xarum kam awa lemunu kam surtout lemunu lemuna khun ni waxati ay tuwanu nga ko no mo benanti at talimu fi sighar kan naqshi ala al hajar wa talimu fil kibar kan raqmi ala al ma ken ni talinya ga ko no nanti serenga na khara tugun na khondi ana ko nga na khirelo gide nga antabakay donc al alle men karangundi tugun na kuna igonda yakare imati igumba nan karade igondo yakare d'abord yakaru nyanan kawa nan kara nan koto igunga parce que yana kam maranda non lemunun nun nunni yama ka geliga dori khay katiga kawana anna kun karangundi ina dina ke famu ina katande mana koronchirondi kembere nga leminen karange ana ko angara khire lo gidenga me khirsen karange na ko angana khire khire lo jinno ko angana kitenya na ji na khiri khirsen karange ni kenyi anda bagay ta mo ngay kenya ni alla gati ni wadkurullaha dhikran kaseera Kristen karena yang kita tokoh nusagen ya tokoh sagen ya tak sagen. Hari Al Quran abah ini kitab ini. Kote su angga da kota su baraja nggak kapai. Aku nita su. Angga nih hari angga Bismillah Fatiha abah ini hari angga kiam mumandi. Am abah baraja ini nih tuh Pas ke kote abah nusun ini baraja tamir. Allah farinda kau nanti mati Bismillah ini kote abah ini. Bi ke do si ke do mi abah nusun kote kote tamir. Aheti nanti sun kote tamir. Aure ini bi ini kote tamir. Sin ini kote tamir. Min ini kote tamir. Donk tangi ke kote Bismillah. amma har lahi ka hay bismillah adaga kununga kati wala dalina men me barajen ken kum baraju khani al qiyam ko talla gi transform ni wo nga nam balance nga na khoton di tay agati ni fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya subhanallah serebe balance nga na khoto timenia ti golisu golisu goli surun karanga na jitan parce que ndi so ndi tan na hosul ko an kumpani yala jite ba a qati qa buru nyaga na jité kem mañati alla ga nok kem bi nga xorona dudu khoto yi men xara ono mu mun ngi ona dinan khara ne har duna khara nga langana duna khara bane dinan khara hilloy bawni duna nyemeneya duna wucende ni har qaburan no ko yogo qaburan no ko pungu duna e haqqe an nañi yogo kara sino ko ujine sine lenki kamo kara gi sine akama tankarage sine bira nyi nyaaka anga kebe bira na nyi nyaaka kam mandanya kam sine anda ga wujine sine nya qabran no donc barzakh nyi me hu anda ngani al hayatul barzakhiyya qad tafuqu al hayat ad dunya idan la taghurrannakum al hayat ad dunya wala yaghurrannakum billahi al gharur duna dan ke biran ta hum ma marsa anna ma marseti shaytan na ma khanene aga ke duna wallan kan ta duna ta duna duna duna ke projet ngane dugutana hotana wari ngane dugutana hotana wari nang wi ke me nyemena na projet ku to idan ابتغي فيما اتاك الله الدار الآخرة دار الآخرة ولا تنسى نصيب نصيب نصيب ولا تنسى نصيبك من الدنيا التي كا كا أجد كان كن أن تنن مرولها ما أتي دون تقة أما تكار أتي أنت أن على تيتر فرنسي بيجان تابا كان تون ما تيتر فرنسي سكران تون دون دابا كاين الله تقطن خاتن دان كمرولاها ike alla gara hoo kinanga ida tuwaxuña kinanga ida darajaña kinanga ida nabureña kinanga ida fofo kinanga an kam muru تاي أنانيا jonkoy anga lahara kan kitan anga lahara ti me maka mungan takke almati kade maka mungan takke dunat akara ngara Allah gara tora takke ada lokondi na khimal lokondi ken duna kham ma khaylo no tan chu to 24 heures sur 24 duna duna duna ma kota be duna kan tike haju tahankin wona Allah nyaga Allah gar nonya soroy oga digame mu oga batina ahusring wona akhi digame be agara ko agar hadise be ko wona lagara kam mana nyamati kenga kenga ni ittaqillaha Allah faringa ittaqillaha haysuma kunt kanu allah e anga ño nokkus wa atbi sayyi'ata alhasana hada mara min tanyana anga ma hutundu ndabari allah be gado a watunan to hutunde niya ati allah fare ndanga nana ko danga nanti ibe gana hutunde dabara anga da fu burenya anna ho siren chaka kam anna yampe muru anna goli siren gabe la batendi anga da fu bureke benya a a kama a wakanda goli buren dabari anna halle fagati ho siren anda seringnya makan cehe duro kota anna hisrunko anna sadaka num baganda dangani al qiyamah ko tan dan tindini nanti a ah, amakan ah, cehe ndungai eh, eh. ai anani anda sadaka gabe bagandi ta nangan ta kamang. anda ahisurungko hisrun ka gabe ko nokkoy gelanga da ho burun ko de dagi tuga ta hisrun ka konge idan kesunia ya, ampai lahara simmana lahara ndai sikinga allah ndake sadaka ni bagandi ta kamanya bawni makan cehe ndake nyanga inda toro ndak na burenyiga akaranta kayere allah ngara kibik yigada ngani mpagada bagandi sadaka ya alqiyama ko tan dayin tirini ke sadaka na yakhal idan kesuniya serebe ga kanna lay anga kanna alqiyama ko tan kena laga tin wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun khatan ko tan ko tabe khasu sagene katel o tele bane bane aga do khir sungari kuben gani sikko ma kanere Sheikh Abdullah ba rahimahullah Sheikh Harun samasa adi menu tan wa amsaluhum min jahabizati al-ilm kubenu ga do kharamundi tuana khoro da ke dina sank dingiranci akhada ngadi gada gano kokebe usuna Corona khorona dudo khoto ono duna fagati alla battendo allan alla allan kannen nancon do mem paga alla batti ngana hari loko allan kannen ngana koni am pasunta alla kan alla batti nangabo formu mbane anani fonga ho hontan akha be nyani na alla batuti formu mbane mais il faut fonki an anan ciro no ko ki an ciro wona la nyaga la ga nono kon ciro ndi nan koto selanga kembere nga wona la nyaga khanu nya soro yoga diga mem ko oga batina husreng istaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحمده حمدا يوافي نعمه ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي المنتقى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحابته مصابه الدجى ومن اقتفى اثاره واستنى بسنته الى يوم البعث والدين مبكي ني سانت بور buur bi subhanahu wa taala si ay xéewal yoo xam ne moom yàlla defal nañu ko te kenn mënul lim xéewalu yàlla dafa defal doomu aadama ay xéewal yoo xam ne guddi ak bëccëg ba ba ngay nelaw sax xéewal yi di wàcce nokki ngay noy loolu yëpp xamal ne yàlla xéewalam dafa ne moom mi si boppam dafa teg défi boo xam ne kenn du ko relever wa in tauddu nimatallahi la tuxsuha yàlla ay xéewalam boo ko doon lim munoo si pare munoo ko jeexal ndax dafa am asbax alaykum niamahu zahiratan wa batina dafa am yu feeñ ak yu nëbbu boo doon lim yu feeñ yi rek ngay nëbb waaye organes yi nga xam ne ñooy nekk sa biir ñu koy jàng si médecine di si spécialisation fànn bu nekk kii jël bëñ kese kii jël bët kese kii jël cër bu nekk mu am ñoo xam ne si wàll boobu la ñu nekk di si jàng juróom-ñaari at waaye du ñu mën a xam lépp nag yàlla jox la loolu yëpp matal ko nag lii yëpp ay xéwal jël xel jox la ko mala yi la ëpp doole junni yoon nga leen di maîtriser si lan si xel bi nga leen ëppalee bu dee fas nag ñoo la ëpp junni yoon jëleem kenn waxatu ko ak naka noonu san compter oto yi ak bateau yi ak avion yi loolu yëpp doomu aadama bu tuuti moo koy dawal kon loolu yëpp ay xéwal yu la yàlla defal ba pare mu ne nag wala tus aluna mu ne nag na leen wóor ne maa ngi giñ sama kattan man yàlla ak sama doole ndax amul leneen lu gën a rëy que sama bopp maa ngi siy giñ ne la tus aluna dinaa leen laaj bésu yowmal qiyaam anin naay yow ma idin anin naay bés boobu dinaa leen laaj xéwal yi ma leen defaloon yëpp ana lan ngeen si def kon xéwalu yàlla si kaw doomu aadama xel bi nga am ba pare jox la temps temps moom nga rawee ñu génn àddina tey yaa ngi am temps mais temps bi fan nga ko jeexal kon nag suñu waxtaan tey mooy nañ xool suñu temps bi nañ ko def si ragal yàlla ak jàng ndax ragal yàlla mooy tax nga dugg àjjana waaye boo ragalee yàlla nag mooy ne ragal nga yowmal xiyaama safara bi nga xam ne moom yàlla moom la préparé ñu ko wedd waaye boo ragalee ba pare nag ana ban yoon ngay jaar ragal nga yalla ga sa xol fess na ragal yalla warate bi deg nga ko ngafes nga alquran nga fess dell ak ragal yalla ragal yowmal qiyam naka lay def naka lay mucce mu dess question bu mag moy naka lay xame yon bima wara a jaar ba pare yalla ne la ah lolou day réglé nako ci alquran ba pare ndax alquran bala yalla di wax yonent julil woral joxal asaka dem aji mak daf ko ne iqra muy sar bu ñeuk wacc ci alquran dafa melni islam kon diine xam-xam la diine sàkku xam-xam la diine ëppale si xam-xam la te précisé wul ne jàngal mathématique arabe alxuraan déedéet dafa ne jàngal waaye jamono ji ngay jàng na la sa tur borom ëmb ba pare na nga na la wër ba pare ba nga xam ne foo gestu rek nga gis sa borom si jàng addina bi ak si jàng àllaaxira kuy jàng addina séentul bu dee médecine ngay jàng bu dee science ngay jàng bu dee technologie ngay jàng bu dee alxuraan ngay jël lépp looy jàng na la borom bi wër ba pare bu ko defee di nga xam si ngay teg sa tànk dinga xam ne àddina bi ñi la ëpp am doctorat am agrégation am lépp tey ñu ngi si biir bàmmeel lan moo leen di njëriñ ah li ñu jàngoon si yàlla ndax ne yàlla dafa ne inna na inna bi tawkiid daf ko dëgëral cons ne certes amul benn sikki sàkka ne di ngeen ma wuyu si amu leen foo leen mun a jaar ba bañ a wuyu yàlla subhaanahu ba malakul mawtu du leen fi indi ba pare nag boo ñëwee lu fay am mu ne summa inna alayna hisaba bo ñëwee nak dina la audité dina la fay li nga doon def wa wajadu ma amilu xaadira li nga defon yépp fefek, ko fi fekk kon doomu adam bala ngay dem ñu lay laaj war nga sakku xam-xam comme si période bi ñu nekk ouverture des écoles jang mo xew ñuy jang waye buñ ko yamalé si adina ndax yamuñu ci adina dañuy jéggi dem àllaaxira bo jangalé nit ki mu xam àddinam yépp waye bu doon fi lañuy yem mu baax mais ndegam da ngay dem té li fiy dund yenn saay sax nga fekk barzakh nit ki dee li muy dund li muy def si barzax ëpp na li mu dund mu def juróom fukki at dem ñaar téeméeri at ñi nga xam ne bi mu gaañoo léegi mot na ñeenti téeméeri at ñaar téeméeri at kon li mu tëdd si barzax ëpp na li mu dund waaye nag bu fekkee yow sa lépp si àddina nga ko def te yàlla nee na na ngeen ut àllaaxira àllaaxira mooy wéy àddina bii luy jeex la yàlla wax ne wala taxurannakumul xayaatu dunia dund àddina bi bu mu leen nax wala taxurannakum billahi alxarur seytaane bu mu leen nax seytaane daal day ne waaye utal du yow rek la defal rek lu bon lu nekk defal du yow rek la du yow kese la seytaane moom da lay rafetal rek defal rek defal rek ba malakul mawti ñëw ne la acca yow sa temps bi la yàlla mayoon jeex li nga war a lekk li nga war a naan jeex nga war a nooy kon yow amatuloo fi place sa place fële la nekk laata muy ñëw nañ bàyyi xel suñu bopp ñu jàng ndax yonent waxul rek ne jàngal sa doom de dafa ne talabul ilmi farida ala kulli muslim sàkku xam-xam farata la waxul sunna la ne farata la si kaw bépp jullit boo amoon cent ans yow ak ki am sept ans même chose même ordre bi moo nekk seen kaw ne sàkku xam-xam farata la si bépp jullit jullit bu góor bu jigéen yépp a si dugg ne na nañu sàkku xam-xam ndax islam munoo jaamu yàlla munoo woor bu dul nga xam munoo dem aji màkk jël ay million dem te xamoon ni ngay def ak li ngay wax munoo julli te xamoo naka la boo nee sa doom jógal julli fajar nga ne ko newal julli waaw mu jóg rek sël mu raxas loxo joxas jaxase yëpp jóg sëgg si gi ne papa julli na est-ce que julli na kon balaa muy def da ngay jàng ba pare moo tax yàlla di wax ne da ngeen di ragal yàlla ba pare ngeen xamne bo ragale yàlla yàlla xamal len waaye yonent ci bopam fofu lañ koy jexé te muy suratul jumaa ci bopam bu yàlla bi mu waxee baasa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim lum ci tek wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin da ngeen nekkon ci sankute yàlla indi yonent ci ñi nga xamne xamuñu dara mais laata mu len di sant dara daf len jàngal téré bi jàngal len li nga xamne moy xarañ pour ñu xam adina fan la toll adina wan fan la ko wara tey fan la wara yem ci sama xol waye alakhira nako sourale bu baakha a baax ndax alakhira moy wi adina lay jeex ñu ñaan yàlla yàlla mooy ñu dégg ak top ba ñu mëna jàng xam suñu diine bo jange xam sa adina adina day jeex de waye xam sa diine diine day wéy ndax bés dina ñëw yàlla ci bopam moko ko malik maalik yow mu ñu koy dicté ci par jour 17 fois ngay wax malik yow mi diin farata nafila fi bokk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bu fekkente ne yàlla mu ngi wax maliki yawmi din bés bo xamne mom moy bur buur muy bés bo xamantene yawmal qiyam yàlla lutax mu tuddé ko din ndax bés bobu dara du la njëriñ lu diine sa adina mom won nga ko ginaaw ba pare kon diine bu dee am nga ko texe nga yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñëpp ñu am ko bés bu ñuy taxaw ci kanam borom bi aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum istaghfiru wal ghafurur rahim rabbana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la ayban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la karban illa nafasta wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la mayitan illa rahimta wa la zaliman illa qasamta wa la madhluman illa nasarta wa la 'asiyan illa wa la الا illa 'allamta wa la ghaiban illa ila ahlihi saliman ghaniman سالما wa la hajatan min hawaji dunya wal akhirah hiya lak